képp koo xam ne bëgg nañoo topp bu abonné ci chaîne bi rek di Mbacke Kadior TV luñ dugal dana ko am en exclusivité Sonko auditionné après le 4 avril nee nañ kile di Ousmane sonk lu jëm ci ay mbiram jotagut nag jamono ji benn convocation buy waral ne dana wuyu ji ngir lu jëm ci dossier bi nga xam ne mën nañ koy topp waaye buñ sukkandikoo ci journal la témoin mi joxe xabaar bi nee na daal kii di maire bu Ziguinchor léegi tey ñu convoqué ngir daal di ko auditionné lu jëm ci fond dossier boobu ñu koy toppee ca mbirum Sonko ak Adji Sarr nee nañ daal bu fekkee miracle amut ci sax mënees nañoo xaar ba suuru 4 euh, avril ba ba ñuy amal lii di cérémonie de prise d'armes bi nga xam ne ñu ngi ko war a amal ñeenti fan ci weerum avril baskan yëpp di feete juróom benn fukk ak ñaareelu fête indépendance ñu daal di woo kii di Ousmane Sonko déglu ko Euh, mu jàkkaarloo ak kii di doyen de Ciss xabaar boobu daal ñii di waa le témoin ñoom ñoo ko joxe nee nañ daal mbir yi mën naa demee noonu ne fàttali nañ ne it nag kii di Ndeye Khady Ndiaye ak borom këram moom dégloo nañ leen lu jëm ci mbir mi si semaine bi ñu génn waaye daal ñii di le témoin nee nañ ki la di Ousmane Sonko. fii ak 4 avril wala après 4 avril bi dañ ko déglu man na caa ne sax miracle bu amut ci pexe bëgg-bëgg yoo xam ne daal gaa yi ngi koy bëgg ki njortu mënees nañ koo déglu sax suur bi nga xam ne la ñuy feete lii